له سكوري على حياتي عبدا خديما فاز بالآيات أشكره شكر الذين شربوا من عذبي وللجنان خربوا حزت حياة لا ترى لغيري معجزة بانت لحزن خيري يجود للجواد بالجياد وصول لي يكون ذا انقيادي أحياني الباخي بلا يماتا ولا تنازع ولا شماتا أعطاني الباخي الكتاب الأعظم ولا ألاخي كل من تعزما anni jaza walidati wal walida xayran kasiran la yasalu xaalida nafaani bil mustafa al musafai alaytani ma nafa al anfai yor lu jeex te du ko jariñoo sant ne ñaan leen ma man du ko ñaan lu dul li ma bëgg du ma ko ñaan lu tuuti tam moo tax koy ñaan mooy lépp loo sumbal diine lépp loo sumbal Serigne Touba yàlla na nga fekk ndam la ba sumbaat yeneen fekk ndam ya tan bokk ko njaboot gi nga xam ne daaw bi ma fi ñëwee da maa waxoon ne ma sa bëgg ci nun mooy nu ànd loolee ñi ngi ci ñi ngi ci sama gannaaw ñoom ñëpp lu ma wax itam danañ ko def te du ma leen tere dara te ñi nga ànd ak man ci ñaari mbir jub ak jom te xam ne nit ku am jom du des gannaaw àdduna nit ku jub du des gannaaw àllaaxira loolu lépp nag ñun buñ boolee suñu bëgg lépp ba noppi liñ bëgg ci yow mooy sunu borom bàyyi la fi ba ngaa gale say yéen ak say mébét ndax kenn du am li gën di ko weccee li li li yées nitu Seydina Muusaa ya ba leen suñu borom joxe xéewal ya bañ ko tàmmee ba tax ñu laaj la leen suñu borom daf leen woon atastabdiluuna llazii huwa adnaa billazii huwa xayrun loolu nag nun dunu dal xam nañ ne lii yow mii mate nga li nga doon te liñ bëgg lépp nga ci yow kon dañ lay ñaana nga yàgg te wér te bul wuute dara te loo somb loo sumb yàlla na yàlla nga ci am ndamal Sëriñ Tuubaa li may jeexale na mooy nun ci sunu wàll fa nekk ca gaawaan noo ngi taxaw ci ñaari mbir kenn du xeeb lislaam jaar ci nun kenn du bëtt ñàkkum Serigne Touba dam jaare ko ci noonu loolu noo ngi ci taxaw guddeeg bëccëg te taalibe yi ak mbokk yi ak doom yi ak sëriñ ñëpp ànd nañ ci ak noonu wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf waaw nee na mi ngi lay sant di la gërëm baax mu ne xam na taxawaay taxawaay bi rek am solo mi ngi lay sant bu baax a baax mu ne xam nañ taxawaay baax a baax mu ne xam nañ li fi nekkoon ak li fi nekk ak li fi nekk ëllëg mu ne loolu nag lépp yaa ngi ci Mbàkke ne mi ngi lay sant di la gërëm baax a baax mu ne mi ngi lay ñaanal baax a baax Ah. suñ borom gën laa gàtt doog tawféex sëriñ bi waaw suñ borom waaw amiin Mbacke jërëjëf Mbacke mu ne mi ngi lay bëggee it bu baax a baax waaw amiin na ñëpp tàllal seen loxo. sëriñ Mountakha yàlla na nga fi yàgg te wér ñu ngi gi lay jullit yëpp ñaanal Mbacké sa jikko ju rafet saw doxe waa ci min al amradi wa man ankara bi i'tiradi baranil